ñu ngi leen di nuyu ñu ngi fii ci ëttëb sëñ Ibrahima Mbacke fekk sëriñ bi sëñ Abdourahmane Mbacke moom Cheikh Ibrahima Mbacke dëgg yàlla kenn ku ci nekk mën na caa yëngu waaye kër Serigne bi Mbacke moom dañ ci beneen cër ndax xam naa njabootu Serigne bi Mbacke defe naa Serigne Moutalla xanaa moo fa dem maanaam njabootu Serigne bi gannaaw bu Serigne Ibrahima Mbacke demee 54 xëy na Serigne laa xëy na moo fa dellu am na ñu fa dem nag waaye ñi nga xam ne ñooy ñooy tudd tudd Serigne bi moom Serigne Ibrahima Mbacke moo fa jëkk a dem xam naa du day gàtt ndax fi mu jaar fépp ci Pointe Noire ba ba muy dugg Libreville ba ba muy jëlee Air ñëw senegal am na ci yu bari yu mën a wax waaye nag li ci ëpp solo daal xanaa ñaanal sëriñ bi waaw ñaanal sëriñ bi ab taxawaayam li bëgg ci yoonu maamam bi sëriñ sëriñ eh, sëriñ Abdourahmane yàlla defal ko ko ci ak wér na ko suñu borom defal loolu ci dara jaay maamam xaadimu rasul ay taalibe leen nag wax dëgg yàlla mën naa leen a seere ndax ki nga xam ne mooy sëriñ bii woy juróom yoroon liggéey bi ba yàlla def noonu daaw waxtu wu ñëwee Sénégal dana ñëw siyaare sëñ bi muy sëñ bu soo Gabon seex bi na xam naa mi ngi fi mi ngi fi door a ñëw waaye moom wax dëgg yàlla ab taxawaayam rafetlu nañ ko lool lool lool sëñ bi ñaanal ñu mu sedd guy dem ci jàmm ñëw ci jàmm ci barke Xaadimu Rasuul barke Cheikh Ibrahima mbakki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñëw nañ fii e, ci jataay boo xam ni e, ginaaw bu yàlla dogalee ñu dem ci sëñ Muntaxa doon sàkku kàddu ndigal yu jëm ci liggéey bu màgg boobu ñuy liggéeyal sëriñ Touba ca Gabon muy dëkk boo xam ni sëñ bi dafa sax juróom-ñetti at yu manqué tuuti liggéey fa liggéey boo xam ni nag liggéey bu yaatu la euh, ci tënk rek ñuy dox ba ci jamono jii nag euh, taalibe yi fa nekk yépp ak kilifay réew ma maanaam ànd nañ déggoo ci barab yi sëñ Touba nekkoon euh, te kenn ku ne xam na ni yóbbuwuñ ko foon ngir am nooflaay ci xatal àggoon nañ ci may ko sax fu mu samp ñeenti bantam ngir def ko jàkk foofee nag buñ demee ba njiiti réew ma nangu ngir joxe ay suuf ngir ñu mën faa amalal sëñ Touba juma man ko faa amalal ay daara man ko faa sampal bis boo xam ne ñoom ci seenu càkkuteef dañ ne ñi ngi màggalal sëñ Touba fu ne waaye ginaaw bu màggalu tubaa jàllee gu Gabon ci war topp loolu njiiti réewi Gabon ñoo ko wax yàlla dogal na tey ñu ñëw ci kër sëñ daam ah, mi nga xam ni moo toog jataayub sëñ Ibrahima Mbacke mu mel ni nag ku tudd sëñ Ibra nag Serigne Touba waaye nag tudd nga jéegoom yu rëy yooyu nga xam ni nag defoon na ko ginnaaw sëñ bi ci atum 1954 ah yaatal liggéeyam sëñ Touba jaare ko ci Pointe Noire ak dëkk jaar yépp ba ñëw làmbar na googu nga xam ni fa sëñ ba mujje ci ab tukkeem ci Gabon mu mel ni kon tey buñ ñëwee fii ñëw nañ fi wax dëgg yàlla eh, ci ni sëñ mu Mountakha sàkkoo ngir ñu yaatal ko ci kilifa yëpp kenn ku ne ñu dem leeralal la ko ndax li yaatuwaayu liggéey bi ni mu toll waaye nag ñëw nañ fiit ngir liggéey boobu nga xam ne sëñ Ibra jógoon na topp jaar-jaar sëñ Tuubaa mu mel ni kon ñun lii ñuy def sëñ Ibra mooñ ci jiitu ndax mbooloo mi ñu mi ngi tudd topp jaar-jaari sëñ Tuubaa ci Gabon nemmi ku barab yam ne woon man faa mandargaal loo xam ne ku fa demati boo demee fekk ko fa muy jumaa yi Mayumba muy làmbar nag muy débarcadeur bi nga xam tamit sëñ Touba wàccoon na ci ca làmbar nag Mayomba loolee lépp ñu def ko ci turu sëñ Touba ba ko wàccati Gabon rek la nga yitte woo xam ci mbirum sëñ Touba boo demee fekk fa jëfi murid yi kon loolu moo sabab ñu ànd ak sëñ bu Bousso mii nga xam ne sëñ fal bu soo Gabon waajuram sax na ci dëkk boobay diiru ñeent fukki at yu teg ak sëñ Ndam loo mi nga xam ne tamit moom taalibeeb sëñ bi la di taalibeeb sëñ Ibra waaye man mii fa laa ko fekkoon moom it ñeent fukki atam Gabon la la cay manqué du bari ñun ñii ñu doon jëwriñu xas xasida ak karawaanu yomba ñëw ci sëñ bi ngir ñaar yi nga xam ne moom la wax mooy euh, ginnaaw bu sëñ Muntaxa ne nañ ko yaatal dem fekk kilifa yi wax leen liggéey ba nu mu tull ngir ñu am ci ak soññe moom sëñ ma mi mu toogee ab jataayam nag moom daa toppoon jaar jaari sëñ bi kon xam naa dañuy ci ndigalul sëñ bi waaw nga xam ni maanaam moom ndigalul sëñ bi moom la jóge woon topp jaar jaari sëñ bi euh, kon tey suñ dikkee ci jataay bi kon ñëw nañ fi ngir ñaari yëf ñëw nañ fi ngir topp jaar-jaari sëñ Tuubaa waaye ñëw nañ fi tamit ngir liggéeyub sëñ Ibra bu màgg boobu nga xam liggéeyoon na ko ci ndigalu sëñ bi tamit lu koy fësal luy tax taxit ñëpp mën cee teg bët incha allah bokk nañ ci suñuy programme ak suñuy taxawaay mooy dëkk ba mu jaaroon ca làmbar na incha allah ñu man faa amal loo xam ni ca barab ya fa nekk loo xam ni danañ ca gé feeña fësal tu turu sëñ Ibra mën caa fësal ñëw gëm ñëwoon Gabon bu ko defee mu bañ a yem rek ci niñ ko bindee mu yem ci Sénégal waaye ku demati nga moot soo gisee ay jaari sëñ Tuubaa ci làmbar na te xam ni fekkoon na kuñ naan sàmba Ndiaye ca mango yi ca la tefesu làmbar na Samba Ndiaye xamal ko ni ko sëñ bi xamaloon na ma ni mango yi bu ñuy daanu ba des genn ku bokk ci man dina fi ñëwaat kon tey jii mango yooyu ba tey jii ak mango ma nga fa des kon loolee ku fa tudd tudd Seex Ibra ah dina doon ndigal sëñ Tuubaa waaye dina doon it lu amal solo. Euh, sëñ daam mi nga xam ne moom moo toogee ab jotaayam ak njaboot gi yëpp ak mboolem ñu yaakaar sëñ Touba kon xam naa sëñ Seexuna boo ci jokkee ay kàddu ah, ñu bàyyi sàkku ndigal ak ak soññe boobu jëm ci sëñ bi incha allah. bisimilah rahmaani rahim ginnaaw bi ñu yëkkatee suñu kàddu léegi rek doon leeral euh, sëriñ bi liggéey bi nga xam ne moom lañu doon taxawe mu liggéey sëriñ Touba mu liggéey boo xam ne mbooleem murid yëpp war ñoo xam ne liggéey sëñ bi la loo gis nag yàlla day dogal lu ñàkk rek mu am ñoo xam ne ñoo koy taxawe di ko doxal sëriñ bi ni ma ko doon leeralee rek ndax sëriñ Fallou di sàkku ci nga ñaanal ku baax suñu borom doole ay ngërëm ak leeram ndax liggéey Sëriñ Tuubaa dafa sakkan lool loo ci def rekk njariñ la dana la fekk fa nga nekk ndax liggéey Sëñ Tuubaa la liggéey Sëñ Tuubaa bi nag ànd na ko ak mbokk taalib yi muy guddi muy bëccëg ba taxawal lii mu taxawal ànd ko ñoom ñii ba tey jii mu mel ne mu ngi gën a jëm kanam te loolu dañuy rafet njort ne lu sëñ bi nangu la Serigne Sidi moom Serigne Abdou Lahad yal na ko yàlla yàggal te wéral ko dama koo war doon nettali mu ne ma seex naa lii ñaan gu nangu la kon nag ñaan gu nangu googee moom lañ jàppee rek mbir mi daanaka li ci ëppoon Serigne Seex def naa leeral na ko gannaaw bi ñu leeralee sëñ bi ci anam gu yaatu ñi fi ñëwee ci ndigalu Serigne Mountakha leeral ko liggéey bi ak fu mu toll ndax sëñ bi moo moo ñu sant pour ñu mën koo yaatal mboolem kilifa yi yëpp yaataleen ko ndax liggéey bi seenu liggéey la ñu mën a soññ mbokk taalibe yëpp loolu moo waroon ñu ñëwoon ci sëriñ bi fekk ko fi leeral ko euh, wax dëgg yàlla moom it mu am ci mbégte bu baax a baax suñ seex lim leeral ci diggante seen Ibra ak sëriñ bi ak tukki bi loolu mënta woon a ñàkk ndax moom da ci am yoonu boppam wu mu jagoo kon xam naa ne euh, kàddu yi moom dañ koy yemale foofu jox sëriñ bi rekk diglu ko mu mën a yëkkate kàddu yi incha allah rabbi ci turu suñu kilifa sëriñ Daam Abdourahman mi nga xam ne moo tooge jote jotaayu Cheikh Ibrahima moom sëriñ Touba di am mbégte bu baax ak kontaante ci kàddu yi ngeen ñëw dox si muy kuréelu Mayomba bi nga xam ne ñoo nekk Gabon di fa amal ay taxawaay ci liggéeyub sëñ Touba ba nga xam ne moom la fa defi woon ngeen am ci ay yéene muy def fa jumaa ak daara ak euh, fépp foo xam ne bu nit ñëwee dana mën a gis la fa sëñ Touba defoon kon sëñ baa ngi soññu mbokki taalibe yépp di soññu rawatina ñu aju ci kër gi lu ci waaye man mu def ko ci ndax xam na ne liggéey bi liggéeyu sëñ Touba xëy na yéen la ko suñ boroom jagleen ngeen koy taxaw waaye fekkoon ngeen gaa yu baax yi nekk ci ngeen ñëw di yeesal loola kon li ngeen ci yéene te bëgg ko ci yàlla na leen ko ci suñ borom defal sëñ baa ngi ñaan tamit lépp loo xam ne yéen a ngi ko fa yëngu te di ko fa jéem te lépp di lu yaatal mbirum sëñ suñ boroom jàppale leen ci te dimbali leen ko ba ni ngeen ko bëgg ngeen ama ko waaw ndax lii moom euh, lu ko neex la ndax lu yaatal la comme ni nga ko waxee rek ñun nag dañ ci am ak jagle ndax sëñ Ibrahima dafa bokk ci ñi sëñ Touba santoon ñu dem yeesal ay jéegoom foofu sant ko fa ay liggéey feeñu ko ay yoon wax ko ne ko na dem àggaleel ko lool mu dem def ko ba yàlla dogal loola mat mu ñëw loola nga xam ne bokk na ci mission yi mu doon dox si mu leeral ko ci ay yoon comme ni ma ko waxee nettali ko it ngir bañ loola maanaam ëllëg nit ñi buñ ñëwee nettali ko ay nit ku mel ne sëñ Moussa mu def ko ci taarixal ko ngir mu gën a leer ci bopp nit ñi yëpp ni ko sëñ Touba digaleeg ni mu ko doxee lam ca am yëpp ba ñëw kon mel na ni loola mu defe woon ak lii ngeen di def ak gën a dëgëral la rek ak wane liggéey ba nga xam ne sëñ Touba defoon na ko ba ndax euh, keroog ba ñuy sempi bantam yooyu ku ñëw tey gis ni jumaa yi mel ci Touba mel ko ci kër sëñ Touba yëpp ara fañ ko ko defee woon kon war naa war naa am symbole bu mag boo xam ne ku fa ñëw dana xam ne lii moom moom moom la sëñ bi bëggoon ndax sëñ bi lim bëggoon rek mooy diine taxaw te ñoŋ lii nag mel na ni ci li koy ñoŋal la bokk ndax moom ab liggéeyam mooy jaamu yàlla ak taxawu lislaam waaw kon nag sëñ baa ngi soññu mbokki taalibe yëpp di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi ak doxin yi di ñaan li ngeen ci bëgg lépp suñu borom defale leen ko ni ngeen ko bëggee te mu ànd ak jàmm ak xéewal ak yëpp barke borom Tuubaa jërëjëfati ñu ne Gabon ñu ko jege hmm. taalibe nekk hmm. ci liggéey bi nga bokk hmm. la nga ci man nanga ko ci eh, ak kër goo mën a bokk nag rek naan sëñ Tuuba nga yaakaar ñu ngi lay ñaan te di sant ci ndigalu sëñ mu tax ñëpp ci waaw loolu ñu wax sëñ Ibrahima keroog entre 1954 pour nga wax bu ko sore keroog bañ dencee sëñ Mor Sala la wax ni dis bi maag sëñ Mor Sala ñoo ko waroon bokk waaye man dafa am luñ may liggéey loolu te defaguma ko muy fukki fan ak juróom benn ci weeru Korite ba mm. fukki fan yi ak juróom ñaar la fi xëy bisub gaaw tàmbali liggéey boobu ba mu ñëwee lim ci tegaat bëri bëri ko hmm. waaw loolu rek laa ci doon yeesal moom la ñuy defoon ci màggal bi nekk Mbacke Bari hmm. jëmmal ko it moo waral barab bii ñu def jumaa ji hmm. bokk ci jumaay sëriñ bi donte la jumaay Tuubaa ay doom it ah, ci ay doomam la bokk moo ma tuddee ko it وسار كنار الخل لي برمايم